sëriñ sang jaañ sëriñ sang jaañ mi ngi feeñ jamono ci atum 1929 ci dëkku waajuram boobu di kër Sulay ci dëkk boobu nag la feeñe jamono ci atum 1929 mu dëppoo woon ak juróomi fan ci mois de janvier di doomu sëriñ Sulay jaaña ak soxna njéeme jaaña waajuram sëriñ Sulay jaañ mi ngi ko faye ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ sang jaañ nag am na ñu mu bokkal soxna njéeme jaañ ak sëriñ Sulay jaaña ñu mën cee ràññe sëriñ Kodde jaañ ibnu soxna njéeme jaaña ibnu sëriñ Sulay jaaña soxna Xadijatu jaaña bintu soxna njéeme jaaña bintu sëriñ su lay jaañ soxna sa jaañ bintu soxna njéeme jaañ bintu sëriñ su lay jaañ ak moom sëriñ sang jaañ ibnu soxna njéeme jaañ ibnu su lay jaañ ñett la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom muy ñeent laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ sang jaañ mi ñu wax leen ñi bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ñoom ñooy ñan sëriñ kodde jaañ ab xalifaam nag jamono ji mooy sëriñ du jaañ soxna xadijatu jaañ bi mu matee dem kër sëriñ moodu amar nag lañ ko jébbaloon ba tax na moog sëriñ moodu amar nag am na nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ maas amar beneen doomu soxna njéeme jaañ bi ak sëriñ suley jaañ di soxna busa jaañ bi mu matee dem kër nag sëriñ mbajeen amar nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ mbajeen amar nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna nday amar soxna ami amar sëriñ saam amar ak soxna faati amar njaboot gii nag mooy jarbaati sëriñ sang jaañ yi moom sëriñ sang jaañ bi matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ suley jaañ ku ñuy wax nag sëriñ mbay géey nag ci kër suley nag la ko jébbaloon moom magam ja nag sëriñ saam jaañ ci kër sëriñ sëriñ Souley googu nag la jànge alxuraanul karim ci loxoy sëriñ Mbay Géey ginnaaw bu mu mokkalee alxuraanul karim nag wala laataa muy mokkal alxuraanul karim sëriñ Souley Diagne sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke xabbaan nag mu na ko Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag yóbbu ko itam nag ci suuf si ñu tudde dànki gorloo ko fa nag ab dëkk bu mu tudde nag naar ga mu wéy nag nekk nag ci loxoy waajuram di tarbaye itam nag waajuram ba nim matee taxawal kër waajuram nag taxawalal ko kër boole kook soxna suñuy wax soxna Faati Jaañ ba tax na mook soxna Faati Jaañ moom sax am nañ ak njaboot njabootam ci biir njabootuk soxna Faati Jaañ ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Jaañ mi mu faye cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke sëriñ Mbay Jaañ sëriñ Suley Jaañ mi mu faye waajuram sëriñ Xaadim Jaañ ñu gën koo xam nag ci sëriñ Bamba Jaañ mi mu faye sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ cheikh Magey Jaañ mam faye xaritam ba soxna Xadi Jaañ soxna Mati Jaañ ak soxna Mbeen Jaañ njaboot gii nag la soxna Faati Jaañ am ak moom ginnaaw bi itam nag la ko waajuram jël yóbbu ko nag ci dëkk bi mu sancoon nag di kër Suley dëkkeem nag ci dëkk waajuram boobu nag di kër Souleye mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di kër Souleye ci ndigalul waajuram sëriñ Souleye Diagne ba ni waajuram génnee àdduna ci atum waaye laataa waajuram nag di génn àdduna moom sëriñ sang Diagne nag taxawal na itim nag ay daara ñu mën cee ràññee nag daara jum taxawaloon nag ci suuf si nag di gerle bi muy dem gerle googu nag mbooloo mi mu àndaloon ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Cheikh Diouf sëriñ sang Amar sëriñ tim nag ca tool ya mu yit ko waajuróom sëriñ Sulay Jaañ ginnaaw bu fi waajuróom bàyyi koo nag la fab léppam nag jéppal magam nag sëriñ Saam Jaañ di ko xoolee itam nag sëriñ Sulay Jaañ moom magam ànd nañ nag di liggéeyal sëriñ Sulay Jaañ ngir jëmmi Xaadim Rasuul lépp loo xam ne nii nag rak dana ko defal magam defal na ko magam nag sëriñ Saam Jaañ lépp loo xam ne itam nag mag dana ko defal rakkam sëriñ Saam Jaañ itam nag tegoon na foofu nag sëriñ Sang Jaañ mi ñu ànd nag ngir jëmmi sëriñ Sulay Jaañ ja bootu itam nag ci kër gi itam nag di Daarul Xuddoos di liggéeyal ku baax ki sëriñ Serigne Touba Xaadim Rasuul mu wéy nag topp nag ci ginnaaw magam ba ni magam génnee àdduna ci atu 1976 ci juróomi fan ya ci mois de mai mu ñëw nekk nag ñaareelu xalifa Serigne Souleye Diagne wuuf nag ay rakkam taxawu itam nag njabootuk Serigne Souleye Diagne gi ak njabootuk magam gi nag di Serigne Sam Diagne lépp loo xam ne itam nag war na ci kër Serigne Souleye Diagne Serigne Sang Diagne def na ko dëkku waajuram boobu nga xam ne nii nag moom la ko waajuram bàyyi loon doyal ko fa nag di kër Serigne ja fa nekk tabax daaray alxuraan ju mag itim nag def na ko fa ngir ñuy jàng ka jàngale dëkku waajuram bi nag di naar ga nekk nag ci daarul islaam danki jàkka ja fa nekk itim nag moo ko fa def fa gàddi bisi teen ba fa nekk itim nag moo ko fa bënn ak yeneen ak yeneen ak yeneen nag yu mu def fa mu nekk nag ku baax nekk itim nag ku yéeme nekk nag ku bëgg waajuram sëriñ Sulay Jaañ ak mbooleem njabootu nag sëriñ Sulay Jaañ gi fonk itim nag dongay sëriñ Sulay Jaañ lépp lu masaa am ku ko soxla nag mu jox la ko lu takkoo takku itim nag liggéeyal na ko ki fi toogaloon sëriñ Cheikh Gaynde Fatma di Serigne Mbacke soxna loo xilaafaam ci xilaaf ak Serigne Mbacke soxna loo la tombeel Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nag laataa mu fiy bàyyikoo nag joxoon na ko ndigal muy kër soxna Fatma moom Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ngir mu defal fa nag fukki néeg ak juróom-ñett Serigne Sang Diagne defar na néeg ya Serigne Mbacke soxna loo ginnaaw bu mu toogee toogaayu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom itam nag defloo na lu takkoo takku Serigne Sang Diagne ñu mën cee ràññee kër Fallou Silla Serigne Mbacke soxna loo moo ko waxoon nag mu tabax fa ab 4 pièces ba tey ci liggéeyub Serigne Sang Diagne ci ndigal nag lu ko Serigne Mbacke soxna soxna loo joxo ci Touba sura ci kër sëriñ moor njàndam sëriñ mbàkke soxna loo itam nag doon na ko ko defarloo nubooji di dëkkub sëriñ Moustapha Ndiagne sëriñ mbàkke soxna loo itam nag doon na ko fa defloo ay néeka mu àndoon faak nag xaritam ba sëriñ am di sekk rijjal ci Touba saam jaxate sëriñ Moustapha Mbàkke Mohammed joxoon na ko fa ndigal ngir mu defar fa ay néeka ma ngi nag sëriñ am di sekk rijjal sëriñ Cheikh Touba saama sëriñ Cheikh Diaw moom bàyyi sëriñ Diaw kër ga lii di xel koom itim ku fa nekkoon jàmbaar la lu takkoo takkoo takku itim nag def na ko itim nag ci tool yooyu itim nag di xel koom bi sëriñ mbàkke soxna loo di defar këram googu ñu tudde pale bi nag ci taayi li nga xam ne nii moom mooy sas yi nga xam ne nii moom lañ doon bind seex yi sëriñ sang jaañ mii nag la ko sëriñ mbàkke soxna loo bind loo moom itim nag moom moo bind seex yi ak képp koo xam ne nii nag ñaata nga war a joxe itim nag ci addiya biñ paree itim moom la sëriñ mbàkke soxna loo wërloo woon seex si laaj leen addiya million ak benn itim nag la dajale woon boobu lu takkoo na ko fa ba ci suuf suñ si nag jamono jooju ak mbooleem seex si itim nag ñoo gas suuf sa sanc googu itim nag sëriñ Mbàkke Soxna Lo mayoon na ko fa kër sëriñ Mbàkke Soxna Lo itim nag demoon na ca kër gam ko mayoon seeti woon ko ziyaare ji woon ko ci biir kër sëriñ Sang Jaañ sëriñ Mbàkke Soxna Lo itim nag wax na ci ay kiimaan ñu takkoo takkoo takkoo takku nag ci njabootu taayif gi dem nañ ci kër googu nag ziyaare ji ko ndax mbira nga fa mu nekk ne ko am relation ak mag ñi àndoon na ku baax baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci biir mag ña nag ñu mën cee ràññee sëriñ amdi sekk rijaal mook sëriñ sang jaañ nag jaxasoo woon nañ lool sëriñ sang jaañ nag tuddee na ko doom sëriñ cheikh màggat kan moom sëriñ moor kumba kan ku jaxasoo woon nag sëriñ sang jaañ la ànd nañ nag fu baree baree baree bari sëriñ moodu mustapha mbàkke falilu ku jaxasoo woon nag sëriñ sang jaañ la sëriñ moodu bu sa jeng jébbaloon na ñaari fasi kursu sëriñ sang jaaña fas ya benn ma nga tuddoon ami kolle ba ca des ma nga tuddoon taayif mbàkke ndax nag ñaata nekkoon xalifa cheikh ma baabu géey ku jaxasoo woon ak sëriñ sang jaañ la ñoom ñaar foo masaa gis kenn ki balaa mat fukki minute nag da nga gis ka ca des ànd ak jaxasoo googu nag ñu amoon am na bisitim nag sëriñ cheikh ma géey njaxat fekk sëriñ sang jaañ feebar mu doon xamal mbooloo mi ne li muy ñaan daal ci mu cheikh mamadul bachir mbàkkim nu sëriñ tubaa xaadim rasul su fekkee ne liggéeyal na ko dara nag lu mu nangu na sëriñ sang jaañ wér moom mu génn àdduna ba tax na itam nag at moomu sëriñ cheikh ma géey njaxat foofu itam nag la ko sëriñ sang jaañ tolloon sëriñ sang jaañ faye na sëriñ cheikh mëggeey njaxat moomu dooma sëriñ cheikh soxna Diop nekkoon nijaayu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ku jaxasoo woon ak sëriñ sang jaañ la sëriñ basiiru géy war a kuuña moom itam nag ku jaxasoo woon ak sëriñ sang jaañ la sëriñ moustapha géy jëmwali moom itam nag ku jaxasoo woon ak sëriñ sang jaañ la ndax nag ak wóllëre nag gu ñu bokkoon cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasuul ku wóllërante woon sëriñ sang jaañ la am na fu baree baree baree bari nag fu mu tegoon nag sëriñ Diagne daana ko bàyyi xel kaar yi fi sëriñ Murtada Mbàkke wàcce woon nag di al azar yi kaar a wàcce bi mu tudde woon soxna jaaratullaahi ginnaaw bu mu ko wàccee nag ci dëkk bi Moussa jiite nag mi yoroon kaar ba la Cheikh Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag waxoon ne yóbbul kaar bi nag kër sëriñ Sang Diagne soo demee itam nag nga wax nag transport nag lay waaj a def fa da nga wax ko itam nag mu ñaan ci kaar boobu itam nag daana gaare nag ci buntu kër sëriñ Sang Diagne ginnaaw bu fi Cheikh Murtada Mbàkke itam nag wéyal na ko lëre gi ci digganteem ak sëriñ sang jaañ bi sëriñ sang jaañ génnee àdduna moo wax itam nag lenn ci kaaru al azar ñu jëlee sëriñ sang jaañ ci ndakaaru ci hôpital principal boobu mu génnee àdduna indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba ndax nag ak kóllëre nag gum doon wéyal ci diggante sëriñ sang jaañ ak Cheikh Mourtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasul sëriñ Mamor Mbàkke moom sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke ku jaxasoo woon ak sëriñ sang jaañ la waajuram di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke ak waajuru sëriñ sang jaañ di sëriñ suley jaañ ñoom ñaar benn lañ woon sëriñ Mamor Mbàkke itam nag ku loon loolu la daana liggéeyloo sëriñ sang jaañ lu bare bare bari akoo lëre nag gu seen waajur ya séqoon ginnaaw sëriñ Mamor ak sëriñ sang jaañ njaboot giñ fi bàyyi itam nag wéyal nañ loolu sëriñ Moodu jaañ wéyal na ko nag ci sëriñ Sam Mbàkke mi doomu sëriñ Mamor Mbàkke sëriñ Moodu jaañ tudde na sëriñ Sam Mbàkke doom koo lëre nag gu seen waajur ya amoon sëriñ Tuubaa Seex Saalihu Mbàkke ku ba tax na itam nag lu takkoo takkoo takku nag jaar na fa sëriñ sang jaaña ci atum 2005 xel koom jooju sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke joxoon sëriñ Mbacke soxna loo sëriñ sang jaañ daaray 13 la daloon sëriñ Talla Mbacke nag moo nekkoon jëwriñu daaray 13 ginnaaw bu sëriñ Abdoul Fatah Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma sante taalibe yi nag ci ndigal li sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke joxoon sëriñ Mbacke soxna loo sëriñ sang demee bay waaj a jóge nag daaray 13 sëriñ Talla Mbacke nag mi nekkoon jëwriñ ja dafaa ñëwoon nag doon xamal nag sëriñ sang jaañ di ko wax ne daal ngooñ mi nga xam ne nag moo fi nekk laa bëgg bëggoon na nga dimbali ma nag dajaleel ma ko sëriñ sang jaañ nag na sëriñ nag toog daara jooju nag di daaray treize nag ci xel koom bisub keroog nag sëriñ tuubaa seex saaliwu mbàkke nag ñëwoon na xel koom fanaan fa ginnaaw bu mu ñëwee xel koom nag ba fanaan fa sëriñ taala mbàkke nag ñëwaatoon na nag ci sëriñ sang jaañ di ko xamal ne daal jamono ji nag ku baax ki nag mi ngi ci tool yi sëriñ sang jaañ nag demoon na seeti sëriñ tuubaa seex saaliwu mbàkke nag ziyaare ko ca guddi ga nag sëriñ tuubaa seex saaliwu mbàkke nag yónni na fa ay ndaw muy sëriñ taala mbàkke nag mi jiite daaray treize ak saal jiite nag bokkoon itam nag ci ñi daa ànd ak sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke boolub cere nag la ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke yónnee doon xamal ndaw yooyu nag na leen nag nañ ko jox sëriñ sang jaañ te di ko xamal na nag lépp loo xam ne nii daal dana ko jëriñ àdduna ak allaaxira defal naa ko ko ci ginnaaw bu ci sëriñ sang jaañ nag jëfandikoo ba noppi dañoo fob nag cere jooju def ko nag ca mbooleem ndab yoo xam ne ni nag ñëwoon na xel koom mbooloo mi ànd ak sëriñ sang jaañ itam nag mën cee jëfandiku bi ñu fanaanee nag ba asamaan set la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke yónni waat nag sëriñ Taala Mbàkke di ko xamal ne nag na wax sëriñ sang jaañ na yabal jigéen ñi nag ñu ñëw ci daara jam nekk ndax tey jii nag da koo fas yéenee teral nag wuñ tudde woon seex loo ca daaree xel koom nag la sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke rayoon ñu togg ay togg it ko nag sëriñ sang jaañ nag ak mbooloo mam àndaloon ginnaaw bu añ ya paree nag sëriñ Touba Seex Saaliwu Mbàkke sareetub xaalitim ak ay siwoy soow nag la leen yónnee fukki daara yeeg juróom-ñaar yi séq xel koom itim kenn ko itim nag sa jëwriñ bàyyi koona nag ca daara ja nga nekk ñu ñëw daaray 13 fa nag xalima ginnaaw nag bu tool yooyu eggee sëriñ Murtada Mbàkke moom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke la sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke yabal mu ñëw nag ñaanal nag sëriñ Sang Jaañ moom sëriñ Sang Jaañ nag bi mu eggee ci sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke nag ba ziyaare ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke nag mi ngi koy xamal ne yow sëriñ Sang de daa mel na nag la nekkoon sa baay daa am nag lu feeñ nag ci yow mii mas na maa jóge nag dëkk bu ñuy wax Lumbel Sayel jëm si Touba ma ne nag naa jaar kër Sulay ziyaare si nag sëriñ Sulay Jaañ bi ma ñëwee nag maa ngi ko fekk nag mu rey ay gàtt di bernde lii nag dane ma nag ba ma ma addiya di ma da nga toog toogaayu sëriñ Touba Mbàkke tey itam nag a bàyyi koo loolee nekkoon ci seen baay dafa mel ne nag dafa feeñ ci yéen bi mu nekkee itam nag ci loxoy sama baay sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke lépp loo xam ne nii nag sëriñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke nag mas na koo soxla bu tàbbee nag ci sa noppi waajur sëriñ Sulay Jaañ loola nag day daal di faju sama mag ju baax ja itam nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke bi waajur yu nekkee nekkee itam nag ci loxoom noonu itam nag la defoon ci ginnaawam loolu itam nag moom moo tax fu ma leen fekk itam nag war leen a teral bisub keroog nag bi sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag di wax wax jii na ko sëriñ Mor Tandine bokkoon itam nag ci dongay kër gi itam nag ji itam nag na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci taalibe yi li ci gën a yéeme nag ci xissa bi mooy daaree treize jooju diirum nag biñ ko sancee ba ci atum 2005 sëriñ Tuubaa Seex Saaliwu Mbàkke nag musu faa teg tànk tànkam xanaa nag lu dul keroog nag ba fa sëriñ sang jaañ desee dem ñëwoon nag doon ko fa seet si kóllëre googu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag séqoo nag sëriñ sang jaañ sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke moom itam nag wéel na ko nag sëriñ sang jaañ bi mu toogee toogaayu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke xel koom jim njëkkee woote sëriñ sang jaañ nag demoon na ca ginnaaw bu sëriñ sang jaañ nag demee ca xel koom ja ba xel koom ja jeexa sëriñ Cheikh Saliou Mbacke daa yónni nag ay nit doon leen xamal ne nag damaa bëggoon sëriñ sang jaañ nag fekk ma itim nag ak kóllëre bisub kero nag bi sëriñ sang jaañ nag di wuy ji sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ touba cheikh saaliwu mbàkke mi ngi ànd ak doomam nag sëriñ moodu jaañ loo xam ne nii sëriñ touba cheikh saaliwu mbàkke defaloon na ko sëriñ sang jaañ sëriñ cheikh saaliwu mbàkke itam nag defal na ko sëriñ sang jaañ muy rayal ko aw nag jox ko sareetu xaal ak ay siway soow ak café bisub kero nag sëriñ cheikh saaliwu mbàkke mi ngi xamal nag sëriñ sang jaañ sama oto nag laa bëgg itam nag mu yóbbu la moog doomam nag sëriñ moodu jaañ ñoo mujj dugg nag ci oto sëriñ Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke otoom bi mu indi na keroog bi muy ziyaare ji Serigne Cheikh asfaal mi nga xam ne ni moo ko doon dawal moo yóbbu oto ba mu wéy nag topp nag ci ginnaaw ko mu yaakaar nag di Serigne Mbacke soxna loo ba ni Serigne Mbacke soxna loo génnee àdduna ci atum 2005 mu jël léppam nag jébbal Serigne Moustapha Mbacke Njeeñ di ko xoolee nag xaadim rasul wéy itam nag di sàmm ndonal nag su lay Diagne des itam nag ci dëkk bi ko waajuram dëloon di kër Souley ak daara yim taxawal nag ak ak taalibe yi yaakaar sëriñ Souley Diagne taalibe yooyu yaakaar sëriñ Souley Diagne tam àndoon ak ñoom ñu mën cee ràññee sëriñ Mor Tandine sëriñ Gora Diagne sëriñ Assane Juma sëriñ Cheikh Assa Diagne ba tey góor yàlla yim àndaloon di liggéey ñu Daam Ndooy ca Ndakaaru sëriñ Jaaji Ñang sëriñ Daam Sàmb nag muy waajuru Xaadim Sàmb bu RTS ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci mbooloo mi lépp loo xam ne nii waajuram bàyyi woon na ko fi itam nag mu sàmm ko lépp loo xam ne nii itam nag magam na ko fi nag di sëriñ Saam Jaañ itam nag mu sàmm ko sa way mag ñuy nettali nag dunduk sëriñ sang jaañ ci farlu nag gum farlu woon ci ginnaaw borom taayifa ak xel koom googu nag nu mu fa nekkee woon jàmbaar Baye Omar kan daal mi ngi ñuy wax nag ci biir wolofal gi di ñu xamal ne daal sëriñ sang jaañ bu nekkoon ab candidat moom lay woteel ñu teelu nag li ko bàyyi Omar kan bàll ay sa way jaajëfa Cheikh sang jaañ naa la yàgg ku la xam campagne loo parti loo sëñ Mbàkke rek nga xam su fekkoon damay wata ma def la ku ñëw fi yow da nga ko wala tax mu xam joxe wax yu Cheikh sang yaa ma ci doy ma roy la gërëm doggoo bi nit ñi am jàmm ak doole ci sa jëf soo toog di wax dina waa seex sa yaa jaragëm gis naa ci yow lu lañ mënoon sa bàyyi da koo yore woon sax ci ndigal dëkk muy seex su lee di sa bàyyi bëgg am Moustapha ko mu sa nga yàgg la xew mu ñëw ñu sa nga bi gëm sëriñ na ngir santaaneb suñu borom bi ci biir soxna yi sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññee ku wax soxna Faati Jaañ Diagne soxna Faati Diagne moo meññ ku ñuy wax sëriñ Modou Diagne mi ngi faye Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke sëriñ Mbay jaañ sëriñ Souley Diagne mi ngi faye waajuram sëriñ Xaadim jaañ ñu gën koo xam nag ci sëriñ Bamba Diagne mi ngi faye sëriñ Touba Xaadim Rasuul sëriñ Cheikh Magey Diagne mam faye xaritam ba soxna Xadi Diagne soxna Mati jaañ ak soxna Mbeen Diagne njaboot gii nag la soxna Faati jaañ am ñaareelu soxna nag bu sëriñ Sang jaañ dëkkoo woon ñu man caa ràññee ku ñuy wax soxna Ndey Diagne soxna Ndey Diagne mi mook sëriñ Sang Diagne nag am nañ ak njaboota ca biir njabootuk soxna Ndey jaañ gi ñu mën cee ràññee sëriñ Amdi Jaañ mam fayee rakam sëriñ Mbàkke soxna loo jaañ mi mu fayee sëriñ Mbàkke soxna loo bàyyi sëriñ jaañ ak sëriñ Kodde jaañ mi mu fayee magam baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon mooy ku ñuy wax soxna Binta Njaay mook soxna Binta Njaay nag am nañ ak njaboota ca biir njabootuk soxna Binta Njaay gi ñu mën cee ku ñuy wax sëriñ Alioune Jaañ di kam fayee rakkam ak sëriñ seex Ñang Jaañ ak soxna Xadi Jaañ mi mu fayee rakkam baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ku ñuy wax soxna Mbeen Amar mook soxna Mbeen Amar nag am njaboota ci biir njaboot gi soxna mbenn amar am ak sëriñ sang jaañ ñu mën cee ràññee sëriñ mataar jaañ mim faya rakkam ak sëriñ cheikh jaañ mim faya waatee rakkam beneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññee ñuy wax soxna sooda njaay njabootuk soxna sooda njaay gi ñu mën cee ràññee sëriñ saam jaañ sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma jaañ sëriñ mbàkke jaañ sëriñ cheikh moodu jaañ sëriñ cheikh jaañ ak sëriñ abdu jaañ soxna seynabu jaañ ak soxna ami kolle jaañ ak soxna ngóone jaañ beneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna sooda tàndine mook soxna sooda tàndine nag amuñu ak njaboot baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna nday amar mook soxna nday amar itim ba tey amuñu ak njaboot baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna bintu taay mook soxna bintu taay nag am nañ ak njaboot ci biir njabootuk soxna binta taay ñu mën cee ràññi sëriñ moodu jaañ sëriñ moor tàndine jaañ soxna njéeme jaañ ak ku ñuy wax soxna koddu jaañ baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu mën cee ràññi ku ñuy wax soxna sunna jaxate mook soxna sunna jaxate nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag ki sëriñ sang jaañ faye woon sëriñ am di sekk rijaal baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon ñu man cee ràññee ku ñuy wax soxna marietu sekk mook soxna marietu sekk nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee soxna màggat jaañ baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon mooy ku ñuy wax soxna màggat sàll mook soxna màggat sàll itam nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ abdu jaañ baneen soxna nag bu sëriñ sang jaañ dëkkoo woon soxna xadi sekk mook soxna xadi sekk nag amuñu ak njaboot njaboota soxna Seynabu Kan amuñu ak njaboota ak soxna suñuy wax soxna faama jaxumpa mook soxna faama jaxumpa itim nag amuñu ak njaboota njaboot gi nag la sëriñ sang jaañ am ci soxna yim dëkkoo woon sëriñ sang jaañ nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci hôpital principal nag bu ndakaaru ci bisub talaata juróom benni fan ci weeru tamxarit ci atum 1434 ci gàddaay gi talaata juróom benni fan ci weeru tamxarit ci atum 1334 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 20 novembre 2012 mardi 20 ci hôpital nag principal nag bu ndakaaru sëriñ moustapha mbàkke mohammed ibnu sëriñ mbàkke soxna loo moo wax ne nag nañ ko jëlee ndakaaru nag indi ko itim nag ci dëkk bu sell bii nag di taayifa ngir itim nag ñu jébbal ko fi boroomam sëriñ moustapha mbàkke mohammed itim nag moo ko jullee seede itim nag lu am solo itim nag ci ginnaawam wax ne sëriñ sang jaañ ngi nii sëriñ mbàkke soxna loo ngi nii sëriñ sang jaañ bi muy dund sëriñ mbàkke soxna loo mas na koo wax ne yow sëriñ sang maag yow taayif la ñuy dëkk bi mu génnee àdduna sëriñ moustapha mbàkke laaj lu ko taay fitim dundal nag la waajuram wa waxoon soo delloo nag ci way yi ko sëriñ Seexuna Ka di sa tub sëriñ Musaa Ka nag defal mag ñuy wax nag lu baree baree bare nag ci dundub sëriñ sang jaañ ak nu mu farloo woon nag ci ginnaaw sangam ba nag sëriñ Mbàkke soxna loo melokaanu sëriñ sang jaañ dund nag gu sëriñ sang jaañ nag daa dund ak ni mu fonke woon taalibe yi ni mu farloo woon itim nag ci xel koom lu yaatoo yaatu daal la sa tub sëriñ Musaa Ka bii nag di xamal ci taxawaayu nag sëriñ sang jaañ ñu teewlu ko jógal yaa jëf ji ñëpp xëy di ko wax ak lanti nor di da wàllam jot lii di mbiram nga yema wax lii ma day wax wax ji wax ji lu wër fi kuñ fanaan gay na déggal bi yaay ki ka man ak gay na day ñi meg coono jami bani sox liggéey bi seen na lool jëriñ ji may ko wax ak jëriñ ñi ko booleel wax ji wax ji sax kuñ bàcculoo fal moo tee lañ ko gis ci una dañ sanga jàng yo des yi rekk joor di ko jox kuñ ma yooloo junni boo yokkee ba baaxi foofu man amee waxi boo tubana ay ja dox xol yëpp sedd na jàmbaar ngeen aw moos ak ci ñu gis di wax sëriñ bi yàlla na fi sax ay xati at ci kanam te yokk wér wér la bañ naan daj sax dafa sax yàlla te wér say jël yafam di jox jom si naan daara parce que fa mu ne ko wax seela waa ju gëm la daa dex la maa ki ko wax jëf gi sell na na lool yàlla nañ ko yàgg jëfal sëriñ bi yaa ku la dar ci bu gaaw boole sel yaa fi man ñi fi aw saadatu risq laaqa maa ko doon bari wax man maa ko sàkku ci yow ak képp képp ki nun ñu am li fi sëñ bi nekk koy yoree di ko jox te mooy ngërëm noo ngi ñaan nu am ko boole ci lëf ab sax yu lew ñu sax ji jëf ndigal di ko wax yal na nga ko yal na yal na yokkul ay wërsëg te yokkuloo nit te loo ci am sëñ bi lañ nekkal di jël di ko jox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 ati ati at nag ci bis boobu di juróom benn fan nag ci weeru tam xarit waaye màggal gi itim nag dadaa tombeeg itim nag luñ tudde ak nawet daa tombeeg itim nag yeneen bis yoo xam ne nii nag dafa jege itim nag kër Sulay sëriñ Moodu Jaañ nag ginnaaw bu ci waxtaanee ak ay rakkam jàpp nañ nag beneen bis nag di ci fàttaliku seen waajur woo nag sëriñ sang jaaña bis biñ jàpp nag amul bis fixe nag ci at mi heure bu ñu waxtaanee ba juboo nag lañ koy amal ci bokk dëkk taayifa yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram te taas ñu itam nag ci barkeem jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey waajuram sëriñ Suley Jaañ amiin sëriñ Suley Jaañ